ci jafé jafé yi dana deñ parce que nit ku nek boy genn sa dëkk di dem di di jongante ji war nga xalaat ne dina am lo soxla peut-être mu nekkon sa rew du am fenen li am solo moy ñi nga xamanteni ñoy jongante moy équipe nationale bi groupe de performance mom moy ñi nga xamanteni ñoy football ak encadrement technique bi nañ nekk ci jam ñun njëkki ko ci man en tant que ministre des sports dañu fi ñëw and ak sénégalais pour gungé équipe bobu donc jafe-jafe yi ñun war nañ ko mëna xol ay am solo le président de la république yoxe ay instructions ñu def ko pour gunge équipe nationale bi ñu nekk dans de bonnes conditions de compétition.